ñu jóge seen kër bàyyi fa seen soxna ak seeni i doom seen doom yi di dem ñu leen yóbbu ñu jàng ci ecole yi ñu leen di yar pour def ay. ñoom ci inculquer leen ay valeur mm-hmm. ñu war a ci xale yi. Mm-hmm. Mm-hmm. ci kàddu jom ak ngor ak li nga xam ne baaxu Sénégal ci valeur ne bu ñu jëlee nit njiit ko def euh, fal ko def ko njiitu réew mu nekk ci bopp réew bi moom mooy nekk. personne bi gëna bo boo mo moo ëpp en fait moo gën a important quoi. le père de la nation waaw le mm-hmm. père de la nation maanaam merci voilà le mot. ñu né ki kat manam moy bàyyi nation bi yëpp. Mm-hmm. ku ne xam nga bàyyi ni may ci kat orme bi am bi ñu wara def ci mom mm-hmm. boo wax waxee ñu la kii c' une institution. monsieur le président de la république gardien de la constitution suprême des forces armées. euh Sall ngari Lam toro euh, góor naa nga manam il est extraordinaire. ñu jox ko tous les pouvoirs. mo am lu ñu lay tayé Sénégal moy cadeau le respect de la parole donnée man mhm. man quand quand on parle des lois là. Mhm. sans wax naa ko fii quoi mais mosuma gis constitution bu changer, changé te politiciens changer changé wuñ ko. Mhm. politiciens yi ñoo koy quoi te ñoom à chaque fois ñoom ñoo xëcc pouvoir bi. te bu Sénégal nekkee Sénégal ba donc man quand on parle des lois là man dama ni man li ma gëm man mooy loi yi ay loi wu nit la quoi moo tax ñu tardé. parce que ñi ko créé ay ndëgg sërëx lañ ciy créé. parce que lii lañ ci débat yi quoi toog di nax nit ñi. kon loolu du débat bi débat bi man nit la ñuy wax Sénégal problème nit la am mooy nit taxaw taxaw ñëpp di la xool nga nekk président wu kilifa diine yi kilifa aada yi sunu yaay yi say waajur say mbokk at ñëpp di la xool nga ni man maa ngi ci sama benn bi ñuy dugg suñu ci doolee beneen su ma ko Sénégal ay fale ma jël suñu ma falu ma dem suñu ma falee ma xam ni jeexal na loolu président moo ko ñëpp di ko dégg. wolof mhm. dafa ni nit mala buum lañ koy yeewee waaye nit kàddoom lañ koy yeewee man man man nee man lu ma wax fi rek wallahi azul man lu ma gëm la. man je cherche à plaire personne lijjanti ma nit ñi sax benn jëm ku bëgg nga jël ku bëggul nga bàyyi mais dama lu tax ñun ñu wala accepter ñun jël suñu institution yëpp jël pouvoir jox ko benn nit muy bumti bumbi jël suñu gendarmerie teg ko buntu palais mu taxaw bàyyi jaraba ki doomam passé ni sacrifier addunaam pour kaarangee koku non juste pour nous servir nation bi servir peuple bi yëpp. tout à fait Macky Sall oto ba muy dawal ak laax bu muy lekk sax ñun ñokoy fay teg ko ci nekk ni mucc ayib mom wara taxaw di wax lo xamni du ko def di jël ay cadre yo xam respecté wu ko nee na nul la peut faire plus de deux mandats consécutifs boo ko firi ci olof lay wax mais kenn mënta def lu ëppal ñaari mandat lu ëppal ñaari mandat yu tegalantoo mais satan yi mandat wala du mandat wala sept ans du mandat leneen lo woon lan la woon caaf. entretien la woon. lan la sept ans yi da doon waxtaan ak ñun rek ba xëy toog sept ans. transition article la. mais non c'est que dañuy déglu. da ngay ne article je coupe personne. xam nga article moom koy personne vraiment personne. je coupe personne. je prends mon temps damay wax limay wax parce que damay déglu gaay yi ñuy wax. mais dama ni man dama bëgg man waxatuma Macky Sall mais xam nga lu doy waar si loolu mooy Macky Sall jalgati na quoi wax lu mu wax te defu ko wax te respecté wu ko. ñu ànd ak moom ñun di xeex suñuy frère di ci dee ay Mamadou Diop suñu frère policier di ci dee ay Fodé ñu ñun ñoo xeex démb ah du tey man démb laa jug di xeex. ñu dee fii ci Obélisque. tout ay auto police di fël nit muy dee suñu kanam ñu koy gis. tey doomu Mamadou Diop su ma xoolee su xoolee su ma ko xoolee tey ma gestu gis ñu toog ci débat yi ay mag yu bijaaw. am seen i jabar ak seen i taxaw di défendre loo xam ne ñu dañ ko xeex dix ans na ginnaaw. loolu ban maanaam ban Sénégal laa am man. te yéen doon ànd di ko waaw man Sénégal laa am man ndax ñun li nga xalaat ñun suba dinañ dee quoi ndax ñun li nga xalaat ni kàddu ñu non dañuy waxante dëgg rek est-ce que war nañ taxaw fii ñun tey war a wàccee suñu bopp wàccee bu toll ni manque de respect sénégalais saaga la pour man troisième mandat ku man dama ne woon nee ne billaahi wallaahi du ma la nëbb de dama ne fu ma toog ñoo waxee troisième mandat damay jug dem mais dama ñu rek man dama fu ma toog ñu waxee troisième mandat damay jug dem parce que Macky fi am troisième candidature di fa am du ko fi am loolu il faut mu leer ñu xam ko

fii coolee fi nekk rek soit ñu lay nga noppi wala nga toog ci tare ngàmb sa làmmiñ di mbepp mbepp pour loo dundee bu fekkee sa ngor jaral na la jëral yaa xam mais xam dama ne fii li ñu gëm mooy fii kenn du jàpp réew def ko sa poche duñ ko nangu mais nag am sénégalais yu xaj ci poche seen affaire la ñun dañoo gëm Sénégal am na ngëm-ngëm bu fi des ba teg loolu lu ñu gëm la dañoo gëm ni réew mi ñu am nañu fi la si ay valeur quoi ñoo xam ne xooluñu ñu añeeg lu ñu reer ñi nga xool tamit du ñuy bàyyi seen doom suba kàddu bu fi des mhm. dignité bu fi des suba parce que Sénégal ci tey quoi

nous sommes en démocratie nit ñi mën nañu wax seen xalaat. Mhm. mën nga wax sa xalaat te bañ a parce que tooñ xam nga mooy lan nga wax wax joo xam ni, nii da ngay gaaral wala nga wax loo xam ne lii yow li nga ni ngi de respect et puis en fait moi je dis toujours encore je reviens pour dire Sénégal dañu am une constitution. Mhm. dañu ñëw président de la république ay ay ay jinne falu ay ay ay ay malaka falu sénégalais yi ñoo ko fal en 2012 ci élection yu nga xamné président Ablaye Wade moko organisé ñu gagné ko au deuxième tour mu joggé fi dem Macky Sall ñëw. Mhm. Macky Sall en 2012, 2012 mhm. bi mu fallo 2016 mu proposer un référendum sénégalais sénégalais yi ñëw y avait oui ak non buñ ko faté nit ñi euh, ñu dem ñi nga xamné ñoo oui pour d'accord, ci li leen président proposé mo upp que non référendum bi jàllaat avons eu l'élection 2019 président candidat sénégalais nous ñëw le président Macky Sall nous ñu par rapport à tout le travail qu'il est en train de débattre diko def diko def ci réew mi diko tabax le ñun ñuy wan ak limuy jëf en 2019 ay sénégalais mhm. en parlant de majorité kon mhm. majorité sénégalais yi ñi wax ñom dama xamul fan lañ nekk ñoñu ban planète lañ aussi parce que Sénégal il y a le président Macky Sall tous les tous les jours ça yu eu messieurs à joutes électorales je dis toujours que de 2012 à aujourd'hui nous n'avons perdu aucune élection en termes de élection locale législative présidentielle élection nous, ñu suñu kanam ñoo sénégalais donc il faut nous comprendre une chose maintenant l'épologiste aussi dafa si ñëw nit ñi ne way dañuy am nit ñi dañ leen di dañ leen di jox xaalis wala dañ leen di nit ñi dañu dañu ñu ci bari dañu dem di jàng pare di liggéey am fonction nekk ci di liggéey ba léegi jël option nag ne dañuy def politique am un camp bu ñu mais loolu la loi de la démocratie moo ko nit ñi am droit far camp bi ñeneen ñi am droit far camp am ñoo xam ne ils sont politique. am ñoo xam ñi li ñu bëgg moi j'étais écouté par exemple nga wax ci loi islamique mooy dox Sénégal mais le sénégalais ils ont a décider ñoo ko déterminer par un référendum wala un président ñëw ne damay proposer sénégalais yi constitution ne boo xam ne bii loi islamique moo fi dox sénégalais yi adopté bu boobaa ñu ko mais tey li fi nekk ni, sénégalais yi ont ko fi ñoo ko voté loolu fi mhm. que président de la république ñu ne dafa am ay pouvoir exorbitant mais le sénégalais yi ont ko voté président jox ko prérogative yooyu mais quand on dit qu'au Sénégal, amul euh, président moo concerté lépp aujourd'hui on peut le dire mais au Sénégal gis nañ ne démocratie parce que démocratie am ci réew mi moom moo ñu nekk fi di wax ku nekk di tëb di dal loolu démocratie bu ab bu avancé motax mu am fii dañu gis nit ñi kenn ku ne am na lu nga xam ne yaa ngi koy def dara du la ci fekk c'est parce que y a une démocratie fii nit ñi am na ñu doon wax fii wax mm-hmm. je termine ñu doon wax mm-hmm que tous les présidents qui ont pris euh, yi fi précédé yep refusé. Ce n'est Ce pas arrogant ça Nous avons ne Fini, nii ku fi sa mais quel, est le rapport avec les présidentielles mais, mais, mais quel est le rapport non laisse-moi le soin de dire ce que je pense dama ne non non non revenir en arrière est-ce que ce n'est pas arrogant on parle de quoi on parle de la présidentielle on parle des conflits parrainages, on parle de ceux qui ne vont pas participer aux élections je veux dire on parle de ça alors. Hmm, maintenant en parlant de candidature. Hmm. il faut que nous, aussi di une chose c'est-à-dire la constitution d'un ko en français c'est vrai nous ko dégg. am ñu ko déggul ñi ko déggul mën nañ leen ko interpréter mën nañ leen ko waxal parce que dama jàpp ne dëkk boo gis c'est pas pour rien ñu naan nul ne peut nul n'est censé ignorer la loi et pourtant nous avons ñoo loi mm. mais mais que dafa am une administration. Euh, donc ça veut dire quoi que la constitution permet au président de la république de faire. oui c'est-à-dire. qu'est-ce que vous voulez dire par là laisse-moi le soin d'expliquer ma pensée. par rapport à cette question. donc mm-hmm. mm-hmm. interpréter. Mm-hmm. nous avons une constitution. oui je vous dis qu'il y a le référendum de 2016 mu am ay yeneeni euh, élément yu nga xam ne ñëw na tey buñ ne et moi je crois que Alassane l'a dit tout à l'heure problème mu candidature nit ñi am nañu droit poser seeni candidature ci anam yi nga xam ne noonu la ko constitution bi tege xam nga tey nen nen na Aïcha mhm. nekkal sénégalaise bi ëpp xaalis ci réew mi mhm. nekkal sénégalaise bi séné bi 80 pour cent des sénégalais yow lañ bëgg ñu ne nen ne mooy sénégalais bi nga xam ne bu ñëwee Sénégal day prospère mais y a 34 ans il mais doo beaucoup ci oui ça on en discute très bien Légui, problème de candidature yi mën nañ def ay candidature ku ne candidat et moi je crois que les candidats ont été déclarés Ousmane Sonko a déclaré sa candidature <laughs> nangu a déclaré même si officiellement il y mais des candidats candidat à l'élection présidentielle Mali Gakou nee na candidat la est ngi si e, Khalifa Sall nee candidat la mi ci àll bi di wër. ak ñi ñu xamul Mohamed Bougan nee na candidat la keneen nee candidat la. y' a beaucoup d'autres personnes yo xamni ñi dégg nañ leen ñu né ay candidat lañ. Mhm. mais problème mu candidature bi mais amna fuñ koy décider à la fin le conseil constitutionnel va se prononcer par rapport aux candidatures déposées candidature yoy nakala nakala naka ñu ndax amna recevabilité ou pas lolu ñom ñokay décider bu boba ñi ñu décider ne ñii ñoom la seen candidature baax ñoo ñoy jall maintenant. Maintenant, pour interpréter, moi je dis toujours qu'une loi, donc, interpréter en droit. Mhm. les, les, plus grands professeurs... En tenant compte de l'esprit et de la ben oui, mais, bien sûr, Damane, nous avons des constitutionnalistes de renom. Boulen Fatalikou, l'histoire est très récente. Lors de, lors qui, président Ablaïwa de Bifineki, il y a des constitutionnalistes de renom. Nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous par rapport à cette interprétation là fini au Sénégal ni Taï. Mhm. président de la République loi bi on parle français nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs c'est vrai nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mais le mandat est de cinq ans ça aussi c'est aussi c'est de la loi maintenant vous pouvez parler d'éthique je suis tout à fait d'accord bëgg naa éthique bëgg naa lépp nit ci nañ si d' accord ne loolu lu am solo la. Mm-hmm. en parlant de parole donnée yooyu yëpp d' accord naa si ñu di ko wax. Mm-hmm. mais bu ñu fàtte ne. Vous êtes d'accord aussi vous êtes d'accord aussi que le président taxaw na wax. sur cette question. vous êtes d'accord aussi que. référendum 2016 vous êtes d'accord aussi que référendum 2016 on parle président de la République waxoon na ne que c' justement pour verrouiller cette question euh, de mandat vous êtes d'accord sur ça déjà ci référendum bi. ma wax la ci président de la République moo wax. Mhm. même fu nekk wax na ko fa ne sama mandat de sept ans bi dama koy wàññi def ko cinq ans ça bika président di wax ñepp a ngi fi nekkoon di dégg fune wax na et moi je crois que moment bi mu koy wax c'était une conviction très forte chez lui mais il faut ngeen comprendre nous avons des institutions qui fonctionnent dans ce pays mm -hmm. président de la république bu ñëwé bind nak le conseil constitutionnel bi nga xamné mom moy moy moy légiférer en termes d'élection ñu bind ko tontu ko ne que sa mandat bi yow mëno ko mëno ko wañi impossible mu mu bindalu constitution ñu bind ñu am ay ay ñu am nuñ ko bindee wax ko ñu ne ko lii mënoo ko di nañ ko dindi et là je prends à témoin des responsables C'est une responsable moi j'ai écouté Ousmane Sonko dire que la loi n'étant pas rétroactive par rapport au référendum de 2016 mu le président Macky Sall peut-être peut briguer un, mm-hmm. un autre mandat. <laughs> Ah, Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz. Barthélemy Diaz wax ni les vidéos sont là Barthélemy Diaz mais Seigne Saliou déglu rek di nga am sa temps de parole Barthélemy Diaz wax ne. rapidement foofu. wax ne Pape mhm. Alé. oui. le président il est allé beaucoup plus loin. en mhm. disant que même en oh. biñuy nous ñun Ablaye Wade xam nga ñun ñun politiciens yi dafa am lu ñu yàlla bindee le président Abdoulaye Wade sax amoon na droit def second mandat. il a dit mais attends waxuma dañ siy basé wu de. dama ne dama ne waxuma dañ siy basé wu mais dama jàpp ne ñoom li ñuy wax noonu damay jàpp ne loolu li ñuy wax noonu ñoom xam nañ ko. bu ñu waxee ne donc le président le mandat du président bi nga xam ne moom moom moom la ñuy wax noonu ne bu ko war na mën. d'accord maintenant le président de la république. oui rapidement s'il vous plaît actuellement nii xam nga candidature au parti. Mhm. nous, avons une coalition. cette coalition là président Macky le m'a dit. d'accord et puis le parti bu nous avons, nga nu nga sa élection Nous avons am parti am coalition. depuis 2012 nous avons le pouvoir de ak consultation électorale yu président de la république nous avons ko Madame, la latitude. et la responsabilité. de faire beaucoup de choix par rapport aux gens qui et chaque fois beaucoup mhm. problème nous sommes un parti de masse. il faut nous des problèmes. alors mais aussi mais en vérité. pour terminer. Mhm. le président de la république. élection consultation électorale vous faites gagner maintenant pour terminer vraiment sur cette question. s'il vous plaît oui li nga xam ne nga wara def nañ ko nangu li nga xam ne institution yi fi nek nañu dinañ statuer le moment opportun bu boobaa décision yi ñu wax mais le président la mu man la japp daf ñu né ci ay terme de mandat question yi mandat yi en 2019 la ka gars yi commencé won di agiter mu né dañ ñu fal pour ñu liggéey réew mi d'accord je vous demande de ne pas parler du mandat parce que nous sommes dans le temps de l'action travaillons pour les Sénégalais bu ñu wolo Sénégalais yi ñoo ñuy merci Aziz merci Aziz alors euh... Aliou Sow yaa ngi may ñaan parole